bokk na ci li ma doon wax ci li nga doon wax ko wax sax di ko fàttali ci saxbaan sax saxbaan day weeru borom da mu am saxbaan joo xam ne mi ngi nekkoon ci station sëriñ bi dafa wax ne dafa doon ñaanal borom daarul mooti di ko sàkkul ci boromam loo xam ne dafa mujj mu xaw caa it ni mu ko waxee da caa sikk sàkk ndax toog na lu yàgg te gisul la ca bokk ba mu ba saxabaan ja dellu see ca déwén see di jak sasin Mm, yàlla dogal borom daarul moo fanaan si bi mu fanaanse sëriñ bi nee na bi ma jullee suba ba noppi lañ ma doora a won nag ñu déy ma fa nuu diitu la wax maanaam ñu déy ma won ma ne ma li nga ko li nga ko doon ñaanal Ibrahima kat daaw ca saxbaan saxbaani ren ji lañ ko nangu nga xam ne téye na ko ci wet yëpp aar na ko ci wet yëpp. gis nga keroog bi ñu dellusee pataar ci ñetti dërëm yooyu ñu doon wuti benn naar bu dëkk Mauritanie bokk ci tandaxi yoon yi wala bokk am ca bokk ci wàllum seen wàllum nijaay amoon téere bu mu lebal Sëñ Tuubaa fatxul aqfal sarxu laamiyatul afal bi ñuy jàng fii Sëñ Tuubaa gis ko bëgg ko leb ko ci naar bi naar bi ne ko dañuy ànd kon nu ànd wër Kajoor ak Bawol Njàmbur sëñ Musaa Ka nettal na ko sëñ Madu Lamin Jóob da nga nettal na ko ci an nubzatul mubaaraka lu gudd a gudd la waaye téere boobu xam nga suñ tuwaa daa ànd ak borom dal moti mi ak suñ masamba jëb sam ak naar ba ñu wër kajoor ak bawal ak jawal ak ak njàmbur mënuñu fexe ba am ñetti dërëm yi bañ delsee gàttal gi rek mooy waa dëkk bi dañ leen doon reetaan di wax naa ñoom ñi ngi fi jógee bu yàgg ba léegi mënuñu fexe ba am ñetti dërëm ngir fay naar bi waaye gis nga la ca sa borom dal wax ti wax moom la bëgg a indi rek mooy dafa wax ne maam ceerno naa cheikh bamba nong ñuy reetaan naa duñu fay bor danaa ko yalwan wax ju rëy ngi noonu kon lo lepp day tektal rek bëgg go xamni dafa sax ci borom daru moti euh amna xisa bo xamanteni bi euh surtout serigne mor absolo moko netti mu wax ni serigne mudlo dagana bi mu touba ma yomba ci euh gabon de nga serigne musaa kamuni ni kokki guy bisuk talaata nam ci geejge bañu na khatmata ba weer wa dellu see déwén ak bis ba la doog a seeru Bamba ngir pas-pas ba sëñ Mat Lo Dagana kere bi mu nuyoog Serigne Touba ci Mayumba di jàmmanteeg moom Serigne Touba ni ko ana Cheikh jublu ci maam Cheikh Anta ba ko ba mu ñetti yoon ni ko ana Cheikh Anta sëñ Mat Lo Dagana ni ko ma nga fa Serigne Touba ni ko Cheikh Anta day gërëm naa ko bi mu ko waxee loolu sëñ Mat Lo na di wax ci xelam ni waaw maam na mi mu bàyyee njaboot gi ak yoon wa nag. sëñ Tuubaa ni ko Modou mu ne ko Mbakke mu ne ko ceer Ceerno moom mu ngay xalaat day man may moom ci loo xamante ni sëñ Modou waxu ko da koy xalaat rek sëñ Tuubaa ni ko Ceerno moom day man may moom kon nga gis li ma waxoon ni ni ab maçon di jël turel mu doon ab jëfandikaayam wala peel ba muy gasee loolu sëriñ Tuubaa ni Ceerno moo doon sama loxol ndeyjoor da doon jumtukaayu borom da boo xamante ni bii moom la daan jëfloo ndax ba mënagul a jëf moom Eh, borom daaru muuti soxna fat isa job moo daa jëfal eh, sëriñ touba ndax xam ngeen ni bi lu halal rek lu dagan rek la bëgg di jëfandikoo soxna fat isa job moo ko daan jëfal loolu tax na bi sëriñ bi nekkee ak sëriñ mor ante sali ñu bari umpale ko muy faral li wéet ci àll bi dina ci ay garab du nit ñi ci lay safihun li sarfi anhuma basari ñu bari nee nañ bu xemmem sunu si yenent bi ak wéet ak ñeemu tasawufoon yi loolu lañ ma jàppee ab dof loolu dof googu sant naa ci lool te ñaan bu jëm kanam noonu ñu ko jàppee woon nga xam ne wuti naa nit ñi ay gis-gis wuti nit ay bëgg-bëgg ñu jàppee ko loolu tax na ñu bari amuñu woon ci moom soxla waaye soxna su tedd soosu moo ko daa fekk foofee ca ker googa fa daa toog léeg-léeg mu ñëw nuyoo sëñ bi fay ko mu egsi mu ne ko lu doon say tànk mu ne ko dama leen andil wogg wii rek loo ci mu xanaa xam ne. boko ko soxlaa rek man cee xewlu ndax xat na te ji dafa bari mbooloo ta mënoo jaxasoo nit ñi ma bëgg boo soxlaatee rek man ci jariñu loolu ngeen déggoon sëriñ bi di wax ne Ceerno de woggu ndayam wa rek laa koy fay ci àddina lu ngeen gis ci lu mu na fay nit dara ci àddina waaye woggu ndayam wa rek lañ koy fay la ko liggéeyal ak la nar ci moom lay fañ xaju ci kon diggante sëriñ Touba ak borom Daarul mooy sëriñ Touba bu ma saana ñaan sunu sunu borom da koy may ba noppi doog ni ko ñaan ma kon sëriñ Touba sunu borom moo ko may borom daarul moxti mooy modèle modèle bi Serigne Touba liggéey teg ko ci kanam murid ne leen kii ni mel laa bëgg ñëpp mel ni mboolem loo xam ne ab taalibe bi war na ne mel dajale maam Cerno Ibrahima muy jëmm joo xam ne gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla bind ne moo gën ci bindeef yëpp gannaaw yonent bi keneen koo teg buñ booleen bindeef yëpp ne Cerno bindeef yëpp ak sëriñ bi loo ci xam buñ day wax ne buñ leen boolee ñoom ñëpp bëgg gi ma bëgg sëñ bi ñi ñëpp nañ leen boole ci benn balance sëñ bi wat leen ku dul yonent bi rek Cerno laa ne ku dul yonent bi sëñ bi gu gënal ñooña bindeef yi jamono jëpp moo tax Sëñ Tuubaa Coob moo ko seere lool xam nga mënoon naa nekk sax ay wax yoo xam ne dañ koy wax nii du dem waaye Sëñ Tuubaa Coob moo ko bind ci loxoom ne ko ayyuhal madbuuxu bi xubbinaa mooy yow yemoo ci bëgg ma rek waaye dañ dañ dañ laa faat ci bëgg ma maanaam bëgg Sëñ Tuubaa bu doon ab paaka la cee rend yow ayyuhal madbuuxu bi xubbinaa Lebal, lebal, lebal, bi sëriñ bi di dugg ci àll bi di wër pàkk bi dafa bàyyi woon njaboot gi ak borom daarul Muxti foofe ci daaru salaam dégg nga sëñ Moussa Ka mu ni bi sëriñ bi di wër Touba am na fa fetto fa sexaw gu rëy ga luy bëgg a mat weer te gisul waa kër ga Ceerno yoroon waa kër ga ak dongoom ya di jiite daara ja di jàngal doom ya loolaay lalub xalifatul xadimi Cheikh Moustapha al Mbakki moo mat doom yi kon Cheikh Moustapha al Karim bi muy feeñ fekk na waajuram di dugg ci àllub Touba bi nga xam ni dem na ba euh, sori lool doon wër pàkk bi kon bi Cheikh Moustapha feeñee borom Daaru Muxti moo yónni ndaw mu dem ci àll bi di wër sëriñ Touba ba gis ko xamal ko ni ko kat gan wóot na ko fi dégg nga mu ni noo ci yónni xonn ndooy ca yoor yoor moo ko yëgal Cheikh Bamba kooko lay góor Bamba ni Ceerno na nga ko wax boroom saam maa ngi ci xalwa maay defar fileeg saam kon Cheikh Moustapha mu ngi fee ñetti fan ci weeru tamxarit ñi ngi ko jox aw turam fukki fan ciw tamxarit di yow ma hashora sëñ Moussa Ka nee na bisub tuddam ba yow ma hashora la Bamba gis Touba mu leer waraa li lay taxoon Cheikh Moustapha moom Touba leeru mbirum juddoo ma feeñal Touba eh, moom borom Daaru Muuti bi bi Sëriñ Touba sañcee Touba te am fa ñetti at 1891 Cheikh Mahamadul Amin moom Sëriñ Touba feeñ Sëriñ Touba ni mag ñi li ngeen fi doon wut kët gan gi indil na leen ko kon mën naa leen a yeew wi ngeen dellu ba mu yeewee mag ña ko njëkkoon a topp ci la waxoon borom daaru mu ni ko mën ngaa ber sa bopp nag di xëyal sa bopp di gontal sa bopp ndax sant naa la cant goo xamante ni gi xarab dootu ca topp ca mooma at la ko digal mu am kër te amuloon sax néeg te dëkke kër kër lan la ko borom daaru muuti tontu boo lay wax ak cheikh bamba naa ko man dey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 waaye saa bu ma ko waxee rek ma ni ma te wàccoo eh, kon du ma wàcc sëriñ Touba pàkk bi di Touba juróom-ñaari at la ko sunu borom mayoon mu dëkk ko fa moo ci kooru 1895 mu dugg xalwa fii ci Daaru Xuddoos sallallahu alaihi wasallam sallam feeñu ko mu wàqanteeg moom la mu wàqanteeg moom loolu moo ba mu waree mu yebal borom Daaru Muxti Jolof mu dem sañ ci pàkk bee nga xamante Bari fa la borom daaru Muxti ak Serigne Touba nekk ba Serigne bi bind lettre jox ko ko ngir mu yóbbul ko ci gouverneur général ba ci le 10 août 1895 dëppoo woon ak fukki fan ak juróom-ñett ci safar di bés bi nga xamante ni ci la Serigne bi génn bàyyee boroom daaru Muxti njaboot gi ak taalibe yi ngir dem ci géej gi. bu ma dikkee ci diggante maanaam taxawaayu borom daru Muxti ci njabootu Sëriñ Tuubaa gi itam gis ngeen bi sëñ bi demee ci géej gi te tawat tàbbi ca la borom Daaru Muxti def waaye la war ci njàng ma itam Cheikh mustapha mii taw Sëriñ Tuubaa dégg nga Sëriñ Moussa Ka mu wax ni maam cierno Faté ko dalal baasina ba bàyyi ba delsee la ko def Yaasin sëñ Modou Moustapha bi muy bind ab kaamilam booba way juróom mu ngi Gabon Abdoulaye nduur moom nga xamante ni moo indi woon leetar yi Serigne Touba joxe woon borom Daaru Muxti ndigal ni ko na sañ pakk pàkk bii di Daarul naa nekk diggante Touba ak Mbakke te ñu sañ ko ci 1900 Abdoulaye Ndour moomee ba muy dellu moom la borom Daaru muuti jox ay addiyaam ak kaamilub Cheikh Moustapha El Karim sëñ Moussa Ka nee na. ba Abdoulaye di dellu min Conakry maam Thierno jox koy addiyaam ak a bari booleeg mbindum taawam ba am di Moustapha Cheikh Bamba yër ko muuñ ni Thierno xat oo fa sëriñ Saliou booba dafa wax ne bàyyi Thierno de bi sëriñ bi dem ci géej gi lépp lu mu yoroon moom la ko dénk ci loxoom la ko bàyyi mboolem njabootuk sëriñ Touba la sëñ bi def ci Thierno lépp moo ko def ñoom moo leen yar moo leen jàngal. ba ñu yaru ba ñu xam mel nañu war a te loolu sëñ bee ko defoon ci moom digal ko mu def ko ci ñoom te ña ci jiitu mooy sëñ Mudu Musaa sëñ Fallu sëñ Baara te booba jamono ji gën naa jafe ndax booba sëriñ bi dem na ci géej gi te xam ngeen ne ci circonstance yooyu ku xamul sëñ bi lool rek sa pas-pas dana wàññi ko ndax am nañ juróomi at yoo xam ne kenn xamut ci sëriñ bi dara kenn maanaam pas-pas rek leen di wéy ci moom waaye amoo ci moom benn benn benn xam-xam te ñenn ñi wan nañ leen ne sëriñ bi génn àdduna ba seen pas-pas tàmbali yorom waaye foofu la gën a fonke doomi sëriñ Tuubaa yi di leen jàngalal boppam fas yéene am jomi nag di liggéey ba du soxlaal kenn dara di am saqi fukk fukki saqi fukk di ko bay warul leen it la leen sëñ bi waxoon ci moom mu warlu ko mooy sëñ bi newoon na ko Ceerno gone yii di ñett yi bu leen dal buñ saalañ buñ rafle buñ wax ca kaw kon yarub muroo atu mooy ndax boo boo saalañee ab dof rek ngay nur boo yuruti yéele noonu boo wax ca kaw it suñ bokk yàlla wayaan ngay nural <laughs> kon li bëggoon mooy ñu yiw te dal te duñ xiif duñ mar duñ rafle te loolu ci def na ko ci ñoom. njaboot nga bàl ci réew doon bañ doon nga teg ci loxo. loxo yi leen teg faw nga wóolu nga wóolu ko kay jikkoom doy la sëñ Tuubaa jikkoom la def ci seen borom daaw jikko sëñ tubaa moom la def ci borom daaw loo tax mu wóolu ko ba bi muy dem mu jël njaboot gi teg ko ci loxoom sëñ Babacar nit ki bu la jikkoom doyut ab yaram doyuloo doo ko jox sa njaboot boo jëloon sa doom bu ndaw jox ab chinois mu yaral la ko saa bu màggee ne la bir ni amutoo Sénégal chinois nga am boo jëloon sa doom ju ndaw jox yaral la ko boo màggee na la bir ne amatoo ab Sénégal ab américain nga am kon Sëriñ Tuubaa dafa yar maam Cerno Ibrahima def li ci moom ci moom ci maam Cerno Ibrahima jëru njabootam teg ko ci loxo maam Cerno ngir li mu ci moom mu def ko ci njabootam. loolee mas na ca net li lu mel ne li sëñ Xalil Mbàkke di wax ci téereem boobu góor yàlla gi wax ne sëñ Saalihu moo ko wax ne ko borom Daarul Muxti day at mi sëñ Tuubaa demee ci géej gi jaaxle fu mu fanaan ak njabootu sëñ Tuubaa gi sóob na ko ci mu àgg ci fanaan cim sàq moom njabootu suñ tubaab gi booba tubaab ku amul moom jafe-jafe ñëpp lay daw kenn du la mbokk suñ tubaab ci moom da wax ne wa minhum man in raa an nasraani yaxsibuhu min malaayika rahman nit ñi dañoo ragaloon tubaab ku ko jàpp ku gis tubaab da nga jàpp ne malaayika nga gis coono yooyu yëpp nag mu nekk ci bi sëriñ Tuubaa ci géej gi bàyyi ko ak njaboot googu itam taxawaay bu mat sëkk moom la taxaw ci ñoom ba looloo waral keroog bi tawat tàbbee ñooñ boroom daaru muuti làqu magam làqu rakkam ju jigéen tawat juróom-ñetti nit faatu waxul dara waaye bi waa kër Sëriñ Tuubaa yi tàmbalee jël ci wéradi gi cheikh daal di jël ci dal di faatu siñ Mouhamadou Moustapha jël ci sëñ Mouhamadou Lamine Baara jël ci sëñ musaa nee na keroog la Ceerno masa jooy ci duniyaa maanaam keroog la ronqoo ñi borom Daaru Muxti masa génn ñu di ko gis ndax boroom Daaru Muxti dadul dadul jooy ay joor ay jooyam damay wax ne lu yéemu la ci ci ci ci ñi ko xam mboolem ñu koy ñi koy ñi koy tagg ak ñi bind ci moom dañuy firndeel njàmbaar ak ñàkk dellu ginnaaw ak dara dara du tax mu ras bëtam loolu sëñ sëñ Patas Jeng wax dara du yóbbu aw fitam dara du tax mu ras bëtam wéetaay du wàññi ak ngëmam maam Cerno jenn jëmm la sëñ Moussa gis nga dafa wax ne mësula rët mësula tiit du jaaxle man kenn xamul ci ak jaaxle ñimee ñimee ñimee ba mel ne ak ger ak ak gar te waxewe xatt ba mel ne xet xettar ci beneen bayit sëñ Mouham sëñ Maxtaar moom seex sëñ Mahmoudan Koso gis nga bi mu koy tagg dafa wax ne mulimmaatu dëhrin laa tuzaxzihu azmahu walam yura yow man shaakiyan usra yi masalan lu jamono metti metti di nga mënta dindi lu toll ni tarfatal ayni ci dogu borom Daaru Muxti dafa amoon dogu te dëgër moo tax la ko tax a jooy loolu lu rëy la cofeel gu rëy moo moo ko dal keroog ba mu jooyee ca ca ca ci wéradig waa kër Sëñ Bamba yi da teg ñaan sunu borom tabaaraka ko taala ne yàlla maak saa doom yi ak saa ndey ji jote ñu doom yi bàmba yi réer maanaam ñaan sunu borom ne ko man sama jëmm nga jël ko jël jëmmi soxna faat isa mi sama wayjur jël jën jëm mi sama njabot gi ma jota am te nga bayyi fi njabotu serigne touba gi bañ del si lolu fofu la ciofel ak bëgg fofu la fofu la am sunu borom dogal na serigne bi bi mu demee ci geej gi ñetti at yu ñëk yi kenn xamul ci mom dara ba taxon nañu def ay pexé ngir bëggoon borom daaru muti tasaare njabotu serigne touba gi tax ñu bind ko ab lettre ni serigne bi nekkatul tasaareel njabot gi lettre bobé bako borom daaru muti jotee mu def ko aw tangor way soxna fat isa laaj ko lu xew mu ni ko dañ maa wax di ma sëriñ bi nekkatul soxna Fatou Issa Diop moo ko ni sëriñ Touba moo ma ni woon moo may nungu ci màmmeel te maa ngi nii di wax ak yow te sëriñ Touba lu mu wax alxuraan la kon waxuma la ni mi ngi ci kaw suuf waaye boo ko sàkkoo gis da nga ko gis. digganteem ak ñoom njabootuk sëriñ Touba ci nekkuk sëriñ Touba noonu la woon ginnaaw sëriñ Touba itam noonu la woon. te lépp loo xam ne li sëriñ bi santoon na ko ci bi mu nekkee ci tukki bi jëfandikoo ba mu mat ci ci biir njaboot gi bi nga xamee ni itam mujj na ko ginnaaw it ci liñ mën a gis booba itam e, li mu war a taxawee lépp taxawee na ko ba mu mat sëkk. mu liggéeyee ci sëñ Tuubaa liggéey boo xam ne manees na ni kenn fekk ko ca liggéey bi nag dafa yaatu ndax li mu liggéey ci teewuk sëriñ bi li mu liggéey ci gannaaw sëriñ bi kuy seet sax man nga ne moo gën a rëy li mu liggéey ci teewuk sëriñ bi. ndax sëriñ bi bi mu fiy jógee jamono ji lëndëm na lool jamono ji xat na lool te ñëpp jaaxle nañ ndax sa sëriñ Tuubaa mi nga xam ni gisatuñ ko. ba nga xamante ne euh, sëriñ Modou Moussa ñëw na njaareem ña jóge jóge ña ñaaxeem dikk fekk xew-xew boobu am lam jëkk mooy wut oto boo xam ne da ko na nga dem Daaru Muxti ba nga ne sa borom Daaru Muxti sëñ bi ne nañ daje Tuubaa. ak ñeneen yoo yoon ci yoon wi sëñ daam abdourahman ak sëñ mëndum beeg sëñ nangam nangam nee na sëñ bi nee ngeen dajee Tuubaa mi ngi dem sëñ bi noppalu na nekkatul te it mënut a ñàkk a dem Tuubaa ba ñu ñëwee sëñ Modou Moustapha bañ agsee nga xam ne agsi nañ dafa daal di génn ndànk rek bàyyi ak maam Thierno lépp waaye nag booba fekk na àdduna si xam ngeen ko ni mu day bari ay. ay ay yëf yëfaan ay ay ay njaxas ak dugg ak génn ka def yëf te nit wan ko boppam dafa yombo nit wan ko boppam dafa yombo waaye sa ci ci ci ci gàttal rek na nga xam ne la maam Thierno taxawa woon sëñ Mourou Moustapha taxawa woon ko ko ca ca baddilib sëriñ Touba ba ci dajale mbooloo mi ba ci taxawu liggéey bii nga xam ne moom leen sëriñ Touba ba tale woon taxawaay yem ca taxaw bu ko ci taxawul woon dara du mën a sotti ndax bari aana ñu daan danga daaye aka defe ne leneen dana <coughs> dana mën a am lu weesu sëñ Modou Moussa di lépp waaye bañ ci seen maam Thierno moom fam na sëñ Modou Moussa def ko muy lépp rek booba lañ xam ne loolu mënut a ñàkk ñëpp soog a ñëw. mu taxaw nag ca la ko suñ Tuubaa doon doyloo wétali ko yàlla dëgërloo suñ Tuubaa taxaw taxaw taxaw temm nag ci ci ci yoon wi taxaw. loolu danaa ci nettali xese boo xam ne Cheikh Abdoul Ahad moom ko nettali woon ci ci te loolu ku xam danga xam ni loolu mooy fondation yoonu murit ndax sëriñ bi dafa wax ni bi nga xamee ni Seex Seexal wàcc na ñu dem ba war a leeral gannaaw dafa yónnee ndaw ni ci kër gu mag gi gi ci Daaru Xudóos ci Cheikh Mouhamadou Moustapha ni na ma fa ni ñii may lim na naa leen fa fekk luy tudd rakk ña ca mag naa leen fa fekk luy tudd doom ñette mag naa leen fekk luy tudd taalibe ñette mag naa leen fa fekk ba Ceerno xëyee daaru gii di ñëw si di ñëw di di jëm si Touba ba ab baala àndaale baa buy dund ba mu dikkee mu jox ko Seex Mustafa ba mu agsee toog lijjanti mbirum sëriñ bi taxawal ko lépp ba mu leer nañ téere yi nga xam ne moom la fi sëriñ bi doon bàyyi te daan ko jëfandikool boppam mu ni nañ ko xubus le bàyyi ko fi mu nekkal fi yoon wi yëpp ñu fab ko def ko ca magasin bu bu ci daaru Xudóos yeddu jaañ mu teg ko fa ngir mu waroon a saytu téere yooyee baloo loolee amee nag mu ne nag damaa bëgg nu waxtaan tey daa tudd kilifa ga nga xam ni moo sës ci moom muy Cheikh mu daal ne ko euh, nan jàpp sëriñ bi te te doyloo ko sëñ ma numbe sës ca mu ne ko ma numbe mu ne ko mbakke mu ne ko demal liggéey boo liggéeyee ba liggéey bi sont nga andi ko fi nga ko daa indi boo dikkee koo fi fekk nga jox ko kooku kon ñan ñan ñoo ciy des taalibe yi Cheikh Ibra ci mag ma nga fa toog mu ne ko Cheikh Ibra yow it wanee la yoon ko daan gis ba gisatul kookaa mat a gën a wonu yoon lëndëm gi fi sëriñ bi bay moo gën a metti lëndëm gu jëkk ga gannaaw sëriñ bi ba ko nit ñi xamagul yaa ko wane ba nit ñi xam ko wonal nit ñi fi ñuy jaar daal di joxoñ ci mbir mu saw mu dégg ko ñaari loxo loolu mooy fondation yoon mu kon xam nga sëñ Fallou topp ci ak sëñ sëñ Fallou ak sëñ Bachirou topp ci mu ne acca Mamadou Fallou yow ak Mamadou Bassirou yéene ci sës euh, euh, sëñ Mourou Moustapha doom yi mu jëkk sëñ Mourou Moustapha mu ne ko yow it Mamadou Moustapha yaa ci du yow a jëkk am baay bu baax ñàkk ko toogal fiite na sa baay ne woon nekkee ci sa baay ne boo melunu sa baay nit ñi dañ teg fañ tegoon sa fi dëkk nag jërta xëccoo doy nit moo jër a xëccoo boo doyee nit ñi foo nañu fekk la fa loolu mooy dénkaane bi Cheikh Moustapha daal di cay teg ni Mamadou Fallou yow ak Mamadou Bassirou yéene ci sës topp leen seen mag ndax noonu askanu suñ mbàkke morkat xajunu si benn néeg waxuma la benn dëkk te loolu am noo ko amee ci topp suñ mag bu seen mag meloon nu suñ mag seen mag gën suñ mag bàyyi lii la maam Cerno dénkaane woon kero ci taxawal yoonu murit ci Moodu Moustapha léegi laay nattali sëñ mbay xasida gu woo xam ni ku ko gën a rafet gën koo neex amut mu wax ko ci borom Daaru Muxti wax ca wax yu yéemoon ak sax nag sëñ Fallu moom bayit yi yi mu wax ci moom xam nga siiw na ataytu ilal mi'ta'i fi daarihi al-mu'ti li yushkiya shakwa al-qabdi minni bil basti sëñ baara gis nga def na ci moom xasida gu yéemu gu rafet gu am solo wax ca waxit yu yéemu te rëy noonu la njaboot gépp sama sëñ Tuubaa gépp jàppoon ak moom mu lépp doonoon benn ñu àndoon ñoom ñu jox ko cër bi nga xam ne moom la ko sëñ Tuubaa jox moom it mu leen xoole njabootu ay eh, man ab serignam sëñ Mourou Moussa yalla dogal na nak la mam Thierno doonoon ci mom lepp da ko nangu won jox ko diko doxal sëñ Mahmouda nettali na ma yàlla yalla dool leeram nee na ma bi nga xamé ne dañu tok ab dir bo xamné waxu ñu dara ci liggéeyu juma ji sëñ Mourou da fa ñew daru na mam Thierno dama ñëwoon di la siyaar si ak di bëgg laa laaj ba xam liggéey bi sëñ tuba batale woon da nga caa xam lu tax e, waris ya daal di taxaw léegi dañu nekk nangam wala da wala sëñ bi da ko bàyyeelu ma bëggoon waxtaan ak yow mu ne ko ah déedéet déedéet dara mu ci liggéey bi kay nam ko digle woon nala manit it la ma ci jàppoon moom laa ci jàpp dafa tolloog nag nit ñeeg seeni wax dama bëggoon ñu bàyyi ba wax ba ba teeral rek ba xam ne mënuñu ci wax mënuñu ci yàq dara ma soog a wax la may wax waaye boo demee nekk ca sëñ Fallilou moom waxaalee su ko moom sëñ Fallilou moom da da doon peeteem ba nga xam ne nag euh, sëriñ bi. deeyaale ji na ak boromam niñ koy waxe moo di ne euh, wan nañu ginnaaw sëriñ bi di borom Darou Mouhty dellu si nag ci barab bi mu ko sàkkaloon muy Darou Mouhty gile waxat wax nag ne duutuma ne kenn asalaamaaleykum waaleykum salaam rek laa dee deeti wax loolu mooy xam ne. E, Serigne tubaab mi nga xam ne moo yelloo woon loolu ci moom gisatu ko kon nag kenn ku mën a doon ku nekk ak noo mën a tollu mu ngi toog di la déglu soo ñëwee lu mu war a wax ak yow lu mu war a def ak yow dina ko def ak yow keneen ku mën a doon ku nekkit boo ñëwee lépp loo xam ne doo soxla woo ci moom la lam ca war a def dana ko ca def noonu la fi nekkee ba mu neex sunu borom. dañu toll jamono joo xam ne li ma waxoon sax ne modèle la royukaay la dafay gën a fës ci jamono ji bu ñu demee ba jamono dem ba kilifteef di waaj jeex bu ñu ba jamono joo xam ne euh, respecté kilifa day waaj jeex bu ñu demee ba jamono joo xam ne nit ki ndigal moo koy tànn boppam loo ko digal bu ko neexee tànn la ko neex def ko la ko neex mu bàyyi ko boobaa nag fàttali ko maam Cerno day day sëkk boobaa fàttali ko maam dafay jot sëkk sëkk sëkk am na lu bees lu xew loo xam ne euh, ñun ñëpp seet nañ ko ci yëf yi yoon wi nu muy doxee ñi bari mbooloo nangootuñu topp kenn nangootuñu dégg ndigul kenn ñi bari xam-xam nangootuñu topp kenn nangootuñu dégg ndigul kenn ñi bari bari alal nangootuñu topp kenn dégg ndigul may wax ne maam Cerno Ibrahim yi mu wax yëpp daje woon na ci moom borom mbooloo la woon borom xam-xam la woon borom alal la woon ay jamonoom képp koon alal ay jamonoom képp koon xam-xam ay jamonoom képp ko mbooloo waaye mbooloo moom ak xam-xamam boobu ak alam jógu teew woon ko dox digganteem ak déglu ndigal te woon doxutoon digganteem ak nangoo déglu euh, nangu kilifa rek sëñ kon sëñ Babacar gën a sëkk maam Cerno Ibrahima roykaay la boo xam ne képp ko xam ne bëgg ngaa aw fi sëñ Tuubaa bindee fi aw fi nga nga roy ko ci dox doxinam woowee diggante sëñ Tuubaa maam Cerno daal sëñ ci ci gàttal mooy kii suñ ki suñu borom yoon li ko liggéeyloo jël jëruñ teg ko jotam ne ko kii moo moo jàppale liggéey bi bu liggéey mën a àgg fi nga bëgg liggéey bi àgg buñ fi doon wax fi ba suba ci cierno yi du jeex waaye daal mooy ñi sëñ bi dib généralam di rakam dib talibem bu ko gëm boo xam ne yemul sëñ beeg dara sëñ bi jëfandiku ci moom loo xam ne ay teggin mayuut nga ne jëfandikoo ci kenn waaye bëriwul ñu ko jëfandiku kooku mooy Cheikh Ibrahima yàlla na yàlla tas si Amada, Ramadan. ಸಂಗಾಯ